LVD TV, la voix du Njambour. kon mbokk yi si naan LVD TV la voix de Ndiamp Production aja mbokk yi ñu ngi fi nga xam ne mooy ci arène nationale waaye Babacar dafa mel ni ñaamu ndaw muy dugg si noonu ndeysaan moom ñaamu ndaw ànd ak majj gis naa ki nga xam ne moom mooy dund waaye Serigne Mor a ngi noonu ndeysaan ñaamu ñaamu ndaw gi noonu ndeysaan xale bu géejawaay bi ndeysaan mu ngi jëlab leket teg ci kawam ndeysaan waaye Babacar Babacar dafa mel ni ñaar day lamb si ndeysaan eh xale baa ngi noonu ndeysaan Babacar kooku mooy ñaamu ndaw non noonu eh, ñaabu ndaw ñaabu ndaw bursin li waay doon jaay léegi rek mu lamb ndeysaan Babacar am na lu muy wax ki nga xam moom mooy sëñ Mor ndeysaan Babacar lamb dafa organisé de gars yi seen dafa am kii kubéer ey eh, waay ndeysaan sëñ Mor maa ngi lay siyaare ndeysaan Baye Fall baa ngi siyaar Baye Daaru baa ngi noonu kookoy dund ndeysaan xale géej waay yëpp lay àndal ndeysaan eh, xale yëpp lay indi ndeysaan kooku moom mooy Derzo ki ngeen ngi ci ginnaaw ndeysaan seen naa caatu waalo seen xale yi géej waaye yëpp ndeysaan Babacar Serigne Mor ak ak Doudou ña ngay waxtaan ndeysaan yor nañ li nga xam ni moom mooy xaw ma sër la xaw ma melekaan la xaw ma popil la xaw ma nu mu doon waaye mu ngi verte ndeysaan ñu ngi koy sànq ki nga xam ne moom mooy ñaamu ndaw ndeysaan nañ ngi noonu ndeysaan di ñëw Babacar xalab géej waaye ngi noonu ndeysaan ndeysaan dëgg na li nga xam ne moom mooy xorom sax ndeysaan ña ngi koy seddi ab gàllaaj waaye man Babacar li ma jaaxal tey si Niang bu Ndaw Niang bu Ndaw tey dafa dafa dafa sérieux Babacar kooku moom mooy Niang bu Ndaw ndeysaan Babacar Niang Balde ma ngay sangu Baye Darou Ba ngay sangu ndeysaan ndeysaan ba ndeysaan Babacar Niang Balde nañu def nànk nee na ñëpp dem ngi noonu dugg see ñàmb na wa ngay dugg see ndeysaan. ji mel na jooy la waaye yóbbu dëggal nga ubbul lamb ndeysaan kooku moom mooy ñaamu ndaw bay daaru baa ngi noonu ndeysaan ànd ak caatu waalo mooy xoolal fi ngay waaye ndeysaan Babacar lu ne géej waaye lu ne lañu indi lu ne Babacar ndeysaan fruit yi bari na ndox mi bari na gis naa lekket yi gis naa béy ndeysaan ndeysaan ginaar yaa ngi noonu lépp a ngi ci biir ndeysaan eh, lamba way lamba rafet lamba taaru tey jii tey ni ko mag yi lamba waxee tey lay tey lay passé li nga xam ne moom mooy examen bu ndaw à la tête de la structure. j'ai une Production organisée. organisée Deuxième combat de la soirée. Cinquième journée de la saison 2023-2024. Number one face à Lakan. Waouh waouh. Combat bi Combat bi combat bi Number one Mo ñun Lakan mo ñu won Lakan rouge. Elton moo teel bopp bi boo mooy la soirée eh eh ko woo daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko Lakan daan na ko Lakan daan na number one jëli bi gaaw na jëli bi gaaw jëli bi gaaw jëli bi gaaw na Lakan daan ko. tey noo ñëwee. waaw tey tey indi fu mbooloo mu bëri ñu nekk ay xale fi ñu nekk ci làmb ñu ngi ñuy séntu raw. dañu allah dañoo ñëw pour wané ko ci kàddu suñu borom. ba xam ki ngay bëreel ndaanaan la. waaw du ko bañal quoi. wa mais inshallah rabbi buñ duggé nañ xamni ma gëna doon ndaanaan ci kàddu suñu borom. mais xam nga importance bu xamna bu baax baax xamna fi mo mën yobbu mo moo tax lamb bu ma jox cër moy ni parce que kanam tuuti bu ñu duggee bi nañ xam bari ko inshallah lu mu laaj da ngay ñëw xex wa da ngay bëre bu arab sibilé lu mu laaj mom lay appliqué inshallah ñaan suñu borom defal ñu ndam waaw waaw. Bébé Zoro ak Fils de Diène Bébé Zoro moo leen wan ginnaaw Fils de Diène ngeen jàkkaar lool Bébé Zoro Fils de ñaari ndaama la ñaari luur lañu Bébé Zoro Fils de Diène Bébé na bébé Zoro ak fils de Diène fils bébé Zoro door Mais léegi troisième combat de la soirée baa ngi ci gi production woñu fi bébé Zoro fils de Diène bébé Zoro ak fils de Diène bébé Zoro fils de Diène bébé Zoro sen fils de Diène seen ndeyjoor xëc na ko japp na ci japp na ci na ci bébé Zoro kii bébé Zoro rijaal bi arbitre sifflé waat na bébé Zoro rijaal bi bébé Zoro fils de bébé Zoro fils de Diène bébé Zoro ak fils la ñaari xale ñu ñaari luur lañ Bébé Zoro jàpp ci ngemb li. Bébé Zoro moo yor ngemb lu Bébé Zoro jàpp na Bébé Zoro fils de Bébé Zoro fils de ah, oh, Bébé Zoro ak fils de teere yaa nga wata di dagg. Bébé Zoro bu bëggoon moom lan lay wax ak bi. Ah, lan lay wax ak bi. am na avertissement na xoj. am na avertissement na xoj. eh waaw. waaw ah, moo doon déclaré de. waaw moo doon déclaré far yéen waa dem ci oh, kawam. Eh, eh, eh. waaw waaw arbitre bi Bébé Zoro a ngeen négocié. Bébé Zoro rijaal bi eh. laa ilaaha illallaah. hee hee. booy fayu na ma ngay rokkos. fayu na ña ngay xeex ña ngay xeex Bébé Sora Fils de Diène ña ngay xeex laa ilaha illallah eh li yombul tey yombul yombul Bébé Sora Bébé Sora Fils de Diène yomb. ndax ñoom ñaar ñëpp dañoo am problème adversaire. waaw moo tax ñuy dëggal seen bopp. waaw bokk lu ñuy bëree. Bébé Sora Fils de wala ñoo bëri surux doy na waar waaw ñaari surux kat laa ilaaha illa koy surux kenn ka siñ de Fatick maa ngi ñëw sonn ngi ñëw non day dur yomb eh sonn ngi ñëw mais tous ba fële ngay jax waaw Bur Sine non Bur Sine nga yëngal yëngal doomi Bawol ji a xam ne combat bii day neex combat bi dafa neex waaw na si gars yi xel bi combat Aïcha ña ngay xeex ca kaw ma ngay rokkoo ci suuf ma ngay rokkoo ci suuf waaw Bur Sine bu dee bëree grand combat ah. combat yëpp xeex yëpp xeex lay doon sax yëpp fi mu ne ne combat yi fi jaar yëpp a neex. waaw dégg leen ndaw si li waaye. waaye est xam nga ni bébé fils de ah. la bëgg mais mayu ko. bëre la bëgg mais mayu ko ko ña nga ca ña nga ca ah, ñoom ñaar. Oh, fii xeex rek a koy jeexal. bébé Zoro fils de bébé Zoro fils de ma ko seetaan tey waaw ah, waaw. mais eh, eh, eh. der la Pikine la ah, jógee. waaw Pikine amul ragal. Pikine la jógee. mooy dul ma gone Pikine. xale yi Pikine la bàyyi ko ma ngay dox ca kawam. ma ngay dox ca kawam jàpp na ko ma ngay daanu. mbaaru daanu. fi bëree 5 minutes. fils de Diène ak bébé Soro. hop hop hop hop lu waay doon ak bébé Zoro. waaye daa mel ne ñaax nañ ko de. Fils de Diène bébé Zoro. yedd nañ ko de. Fils de Diène ak bébé Zoro. waay waay sa laa ilaaha illallaah. bu toogee. Oh, bagaar. waaw waaw. a neex. kon yaa ngay oh, gaañ la ilaha illallah hop hop hop jëlal loolu. Bébé Zoro ak Fils de Diène. Zoro tey am na ci ñaar ba du yàqale. waaye tey Bébé mii tamit booy Diène mii moom tey bi combat du ko fàtte bu si kereeram. bilaay walaay boo ko laajoon mu ne la billet si gën a metti waaw waaw ñaari avertissement. waaw. bu ko dóoree day fayu. mooy daw génn. fayu. kon foofu waruñu ko fa ñaari tànk yi teg moo tax xeex bi garaaw. tekki dafa ñëw indi góosam tekki ñëw indi. indi góos teg waaw waaw. waaw la kenn ku man mën ngaa xeex ba gaañ sa morom. xeexee waaw waaw waaw gis nga sa waay ko ci may chance mooy day dagg léew doo changé place waaw waaw. bébé bébé Zoro ak Fils de moo ñu woon ginnaaw moo moo sëgg noonu waaye taxaw. teen la ku nekk si bunt bi ngay ba mu des benn arbitre bi. ndeysaan kële jeexal na jeexal na tàkk nag ma mbër bu jàppee eh. jeexal na hop hop hop mayul ma lii bébé Zoro ak fils de Dieng <laughs> fii waaw waaw bu jël avance ci biir fii ci biir fii ak ne ay ah, ah, yi ay ci ma si bala fee góor a jëlee xaalis di nga xam ne rëbbum jaan gu mbëtu ko jiite day saf maa la wax loolu bébé Zoro rijaal bi ak fils de Dieng sa dox ci kawam ay waay ponkal ma yaruna tërbin ba fàq waaye daa mel ne Ndiaye bu tuus. Ndiaye Ndaw de Ndiaye Ndaw de wàcce dëkk ba tey ma loolu. yaa yaa ngi na xam ne pata psychologique hop hop hop hop waaw waaw fils dox ci kaw bébé Diène. bébé Diène fils de. waaw booy Diène. fils de Diène fils de Diène fils de Diène bébé Zoro. waaw waaw fils de Diène bébé Zoro. fils baa ngi koy accéléré. fils de Diène a waaw waaw mais mu jeex ña ngay damante baaraam. waaw waaw a jante nañu. bu songoon song bi jeex mais booy bi mi ngi song mais kële day défendre moo tax bëre bi yeex. moo tax du yomb. waaw kenn du nu ngoo perdre benn énergie te moom moo waroon a perdre énergie gañe ko gis nga booy baa ngi koy manuel booy bi Fils moo ëpp xam-xam. Fils moo ëpp xam-xam. moo ëpp xam-xam moo ëpp xam-xam door na ko. nga ca ña nga ca ña ngay Ardo. waaw waaw laa ilaaha illallaah. waay la woon waay la woon mais dama bàyyi maa lay nuyu. Eh, mais waay la ak jàmm waaw maa ngi sant yàlla bu baax. na waaw maa raw sant yàlla ju si yoon bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ si Abdou Karim Mbacke di ko ñaan maa fay mu yàgg fi loolu tawet dina naan bu baax di ñaan si internet bu baax a baax sama waay bopp di lépp jàmm mais yéen yéen jafe-jafe ngeen am ci wàllu làmb par rapport ak fi ngeen moom fi ñu dëkk moom lenn rek mooy suñu jafe-jafe ak làmb mooy sori arène nationale ñoo sori daal soo xoolee ñu ngi déparé fi ñu dëkk ñu ngi fa déparé midi 2 ñu ngi egsi fii presque ay 13 heures 15 xam nga ay jafe-jafe la quoi moo mooy suñu jafe-jafe autorité yi wax dëgg yàlla ani waaw doo mu ngi fi suñu digganteeg Tonnerre daa war a leer lamb la suñu digganteeg Tonnerre lamb la mais eh, eh, Tonnerre pas la waay. waaw mais xale yi nanguñu ñoo jël Moroka nga nangu ñoo jël Youssou Ndour bu bees Balla nangu ñoo jël ñi ñu soxla yëpp kenn nanguñu see jël bàyyi nañu fi nu ñuy def nañu mag ñu may sax ñu ngi ci kaw. 10 combats laa def 10 victoire. booy booy pir ne pare na pour may maa booy pir du lamb waaw da bëgg ma ko te tuuti laa la wax champion d'Afrique meilleur leader. Tony Junior laa la wax de waxuma la ay mbarul la la Tony laa la wax yow xam nga Tony bu baax non man Tony laa la wax Tony safara da koo tëkku fii keroog maa ko safara woo ma barki Cheikh Abdou Karim Mbacké télé laay waxee woo ma si kaw tribune bi dama kii bi bu ngeen jëlee am si kaso bi lañ leen di tëj yéen da ngeen a bëri ñoo xam ne yéen leen mën ci làmb te xamul ko te loolu mooy la am to dama koo njamlu maa ko samp maa ko njëkk a jox ngemb na ko takkal bëre kon daanoogul daanoogul te pareeguñ sax pour daanu nag bado loolu laa lu wax li fi falang bàyyi won Mbaye Diop bàyyi ko fi Abdourahmane ndjay falang bàyyi ko fi bi da ndjay bàyyi ko fi mom lañ ñëw bu jëssu ko wallahi wallaahi guñu bu daanu yalla xam na ko 10 bolok lañuy jaay 10 bolok suñu combat bi di passé ta te CEDEAO lañ jóge ñëw jaay 10 bolok te waaj ñu laa wallahi wallaahi bo bi da ñibisi altine talata altine la ñibisi su guddi talaata ñu xey dem entraînement def réveil musical al khamis ñu ñëw bëne ci jaay 10 bolok waa léegi boobu mbën luñ ci bañ mo ka nga luñ fi dess di 11 combat def 10 victoire ben defet mama ma def 10 combats avec la manière suma julul dara kon léegi Tonnerre na ma may saas Tidiane Faye laa bëggoon te mënu ma sa jot na ma Tonnerre may saas. bar ma lay xaar. jërëjëf bég teg kontaate. sa sa man bu baax. sama garan sama do ndaysan babakar babakar ki sama mbokku deret la. yaakar ma ngi lay nuyu. wa ñu ngi lay fay badum bay ginaaw bañ sante yalla jël ci yonenté bi di sante suñu ñaari wajur di nuyu wa Pikine ginaaw raabi yépp yëpp waaw. ki ñëpp ki ñëpp bay yaa jël. muy kan. amoo ko. waaw da nga lekk avance am. waaw. adduna bi ñoo ko fi bàyyi. waaw damaa xam ne ñun ñaar ñoo war a bëre rek ay combat xale lañ xam nga. waaw moo taxit day neex rek la quatre décembre incha allah waaw. benn la moo koy daan. benn waaw maa ngi si bu baax. a ah, liggéey bu wóor doole ji wóor. waaw ak samay mbokk xam nga waaw. ma dégg ko mu ne combat bi passé li nga indi boo ko indee ci bësam. waaw xaat naa mu door la ba nga tëdd. benn rajo amul lenn lu ko arrangé le 24 décembre du si xeex du si bëre maa la wax loolu incha allah le 24 bu ma ñëwee dinañ xam ni mbër mi ñëw na na fi ñëpp waaj. yëpp a koy waajal waa sama waa koñ waa Pikine nag yëpp billaay waa di ñaanal booy ndam xam nga. waaw ñoom ñoom ñoom bébé Zoro ak ñoom Daraman xam nga waaw ak pëy mur lay waaw.

Tabaski waaye Vita bàyyee ko Fale nga xamante ne mooy école du Père Diaw ndeysaan général bu bikin moo leen wan ginnaaw Vita ngeen jàkkaar lol. Vita pare nga général pare na ay caar bi bi sifle na combat de la soirée ci digg géew gi mu war a dox ci diggante général Pikine bu Pikine ak Vita Vita seen càmmoñ général a ngay rokkos ña ngay xeex général Pikine ak Vita laa ilaaha illallah daan na ko daan na ko général bu Pikine daan na Vita général bu Pikine daan na Vita muy noonu xale baa ngay wàccalee si suuf laa ilaaha daa kaawoo Vita daa kaawoo

wala am nga am jàmmam wala am nga ay dëkkandoo wala jëy bi ko defal Douglas numéro 2 Douglas numéro 2 ngeen jàkkaar lool Patissé wan leen ginnaaw tas moo xonq bi jël ko ànd naag moom laa ilaaha illallaah takk na ko hee mais Patissé li naan xale màgg na mais est xam nga ni Patissé mi màgg na ci làmb ginnaaw fi mu fi bëreeg bu Ndiaga Oro am ndam ndam ci kaw Ndiaga Oro waaye fi mujjee bëreeg ki nga xamante ne Ramdan Ramdan am ndam ci kawam Patissé ak Douglas numéro Douglas ni 2 ngemboo ngembul bële li Petit Zé ñu koy xàmmee moo subu xonk bi da koy bëgg a na Petit ak Douglas Petit ak Douglas Douglas da koy bëgg a xar ak Douglas Petit Zé ci suuf mot mu nga ci suuf ñaar la oh attention war na ndombo laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah ay waay xale bi waay hee Petit Zé hee na ko mu daal di ca ñoom ñaar ñaari xale yaa ngi bëre waay bëre lu neex waay lamb xale waay waay lamb xale laa ilaaha illallah xëccaat na ko taf ko mu bañ ca suuf ñoom ñaar war na ko ndomba xale ba daal di ciy <laughs> waay ba ci see waay la ilaha illallah mais xale mbooloo bi naanaan la oh ndeysaan turandoo général Malika la turandoo général Malika waaye mi ngi dajeeg Douglas te ku ci nekk sa turandoo mbër la woon ndeysaan général Malika ñu ngi koy ñaanal tan bu baax a baax ba daan na ko mu bañ xaj na ko lan la lan moo xew protestant wax neex na waay la muy wax neex na Douglas rocce ko loxo baa sa kaw tànk da koy tëru anam jugo ak moom mënu ko cee daan parce que del xool del xool mën na ci sa génn del xool góob mu ko ci de mu ko ci du ko de da ciy génn Badou Mbaye boobu da ciy génn de da ciy génn daan na laay laxay lan laa daan nañ jàmbaar eh xoola mbooloo na jàmbaar Douglas daan na Petit Zé Douglas na Petit Zé Douglas na Petit Zé. daan na na Petit aja ndeysaan mbokk LVD TV la voix de Ndiambour Production borom Ndiambour Production nak waaye làmb ju rëy waaye làmb xala ju neex mbokk yi jeex jamm melni ak mi bu ngor bëngoor yi 6e combat de la soirée tey nak Jey Production moo 6e combat de la soirée dos ki nga xamni mom moy Boy Waranka mo ñu won ginnaw ñu jàkkaarloo ndaysan lu xew lu xew lu xew Desan bokki ak dam Junior ak Boy Waranka ndeysaan dam Junior ngay Boy Waranka ngay arrière mom Boy Waranka amagul defet ndeysaan Boy Waranka ndeysaan domou yaay Tamsir Tamsir respect mon frère ma ngi laa kontaane bu baax ndeysaan jël nako ko bu nako lu eh booy war a am li nga ni moom mooy avertissement. ndeysaan sama yaa ngi may gàtte. Eh. waa lii neex na kat ndeysaan Babacar ma si Barça ba mu toll. 19 heures lay commencé. yàlla nañ leen dóor ndeysaan booy war nañ koy jël waaye daam si ñor comprendre loolu xeex na jël na ko jël na ko jël na ko da ngay génne jël na ko lu xew lu xew ñu deglu arbitre lu xew ñu déglu arbitre lu xew daa mel ni jeex na de daa mel ni jeex na de daa mel ni jeex na de eh, arbitre nee na bëriwaat waaye jërëjëf arbitre combat xëy daa war a leer ndeysaan booy war nga ak Dame Junior ba léegi nii moo ñu war a booy war nga moo ñu woon ginnaaw Dame lañ jàkkaar jël na ko booy waranga ak Dame Junior ndeysaan ba léegi ñaari xale yaa ngi ci ñaari xale yi ëppantaw ñu dara Dame Junior ak booy waranga ndeysaan ba léegi Dame Junior a ngay dox ci koom Dame ngay dox ci koom ña ngay xeex Dame ngay dox ci koom jël na ko jëlal tànk ba jëlal ba du ko daan tànk ba eh waaye Dame Junior daan la de waaye Dame Junior daan la Dame Junior daan naan la ndeysaan xale bi booy waranka Dame Junior ndeysaan booy waranka eh. ñaari ndaanan lañu Babacar takk na ko da koy tegal la ilaha illallah booy warankataan la ki nga xam ne moom mooy Dane Junior. booy warankataan la. waaye daam nanguwul. daam nanguwul. arbitre nee na noppil. lii mooy arbitre coach bi nee na noppil. waaye jël li xam moom am ndax jël na ko teg ci bopp bi mu ngay wër ak moom léegi daa ne am soow moo ci nekk. mu ngi wër moom moom Bour Sine ndeysaan waaye mbokk yi nag Bour Sine bi mu fi mujjee général Maliko moo ko daan mu si moom mooy Eumeu Sène Junior tey nag combat confirmation la ci ndax day dajee xale ba nekk ci yoon xale boo xam ne ni bi mu duggee ci làmba yàggu waaye tey fii fii du mbër yëpp dañ ko fay moom ñaa bu ndaw xale bu Gounass la xale bu Géejawaay la dina leen léegi ci kanam lu xew Aja Babacar ñi nga ki nga xam ne Lo borom jàmbur production da ngaa tëj dëkkam nag avant ma lay nuyu da ngaa tëj dëkkam ndax combat bi nga taxawal moom la àdduna yëpp di waxtaane Iliman maa lay ngi lay fay ngi lay di nuyu LVD TV la voix de di nuyu seen directeur Modou di nuyu képp koo xamante ne ne mi ngi yëngu ci làmb di leen siyaare bu baax a baax a baax a lan na moon nga toog lu yàgg kenn waaw xam nga production buy génn dafay génn ci loo xamante ne si ne macha allah parce que dafay toog rek di xaar ba gis loo xamante ni si war na ko mën a def loo xam ne dana neex askan wi dana neex làmb ji mu ñëw indi ko bu génn ci zéro daal. ngeen tëgg ñaari xale yoo xam ne ñoo koy waxtaane ñaari xale yoo xam tolloo lépp mobilisation tolloo doole boo xam ne nii promoteur yi nga bëggoon bëri na la. waaw sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax. di sant aussi waa Njàmbur production staffu Njàmbur production yëpp ñoo ci jàpp ci liggéey bi liggéey bi rafet na vraiment ñoom Cheikh Ndoye Khadim Thiam Mansour Lo Amadia ñoom Dame Lo sama frère yi ñoom Jamil ak ñëpp ñoo jàpp ci affaire yi nga gis ne Njàmbur production famille la quoi vraiment heure bu ñu génnee rek dafay nekk loo xam ne génn bu am solo lay doon du ñu génn ci zéro ko man la man la may du sori rek. non du sori incha allahu rabbi parce que am na lu ma dee démb ak tey incha allahu rabbi am na lu may waxtaane ci suuf bu soobee yàlla du yàgg ñu ñu ñu bëre combat bi incha allah balaa koor gi. am waaw loolu moom dama ciy def code parce que ñun xam nga làmb moom ay code la dañ ciy def code mais ñi en tout cas daal ñun ñu ngi fi di yor suñu bët di xippi di xool bu ñu gisee loo xamante ne si ne vraiment lu nice la dañ ciy dugg incha allahu rabbi jox askan wi lu neex loo rek lañ fi nekkee quoi vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm waa LVD TV. la voix de Ndiambour di gërëm seen mbokk internet yëpp vraiment ñi ngi ci yeen bu baaxa baaxa baax merci ba ay jërëjëf Babacar maa ngi ki nga xamni ne moy Serigne babakar yeena a tour babakar kan Kandji Production mo woté le 14 janvier et di combat yu rëy caatu yoof di ci rek ñaka jarñu fils de Balla di ci rek ki nga xamni ne moom mooy Rose et babakar lan nga mëna wax ci bés wa bala bobu ba badoon may maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare baaxa baaxa baax di la jox sa wàcc way nak yaakaar naa ne yow bu ñuy wax lamb comme li wax yaay lamb lamb yow ndax yaakaar na ne gis nga liggey bi ngay bay ci lamb nak yokku da nga wañi du nuyu sa cameraman Babacar waaye kañ yaakaar ne bu ñoy office ñu plateau bu mel nonu gaay ñu lu sant ko gëreum ndax avant tout kanyi amateur la ndax gis nga bis sa ni nga xamanteni ni sa ci jotté mi ngi tok ci loos bi di di sponsoriser lamb di accompagner lamb kon bu ñu indi loolu ki nga xamante mel ne fi sa Balla ak Lac Rose muy combat njërdeem muy ñaari naataango yoo xamante ne nii kenn ne da nga am ci lamb mu du yam fofu bo boole ñaar ño xamanteni ni ñaari gladiateur lañ muy caatu yof ak ki nga xamne moy ñak jarignu ñak jé ko xamne xamne der la ay combat day metti day duré waye caatu ko xamne xamne ci jambar ak der bu bolé ñooñu yaakaar naa ne combat bobu le 14 janvier arena nationale dina am gan. Fils de Balla Lac Rose amna na favori. Fils de Balla euh, la Rose bu ñu jox favori Fils de Balla lañ koy jox ndax yaakaar naa ne mooy xale te mo ci gëna nek nekk moment yi ñu nekk Rose na la Rose dafa am lu pet bo ba ci làmb lu bëri te pour mu rattraper waat ko du gaaw yomb ndax gis nga ba muy combat bu mujju fi digganteem ak yaakaar naa moo ko euh, ndeysaan moo ko gis nga indi dafa des lu bëri Lac Rose dafa des lu bëri par rapport ak Fils de Balla muy xale boo xam dafa nekk ci yoon di entraîné am foo xam fa la teg bëtam saa soo waxee daan la ñetta laa jëm di entraîné chaque jour kon mën nañu jàpp mooy favori ci làmb ji. <laughs> maa ngi lay fay. Fils de Balla Lac Rose. combat la. kañ la. na 14 janvier. incha comme combat rek dina neex dina yëngu ndax ñaari mbër yëpp a waaj. am na favori. bien sûr. fii sa Balla mooy favori. ci comme ni ñuy waxee favori. mbër bu nekk ci victoire mooy favori. mais bu dee si jiitu ci lamb. Lac Rose mooy favori chaque dama koy wax. favori nekkul ku mën. comprendre nga nekkul ne boo nekkee favori rek yow yaa mën mais nag fii sa Balla mu ngi liggéey vidéo yaakaar naa yaa ngi koy gis Lac Rose mu ngi liggéey le daal xam naa ne. Lac Rose gaynde mer la fanaanoo dina leeram du leer la 14 incha allah. Lac Rose dama ko arrangé si bés bi. lu moo ñëw xeex nag wane boppam bëre lu ko yàlla may mu jël parce que nag moo nekkoon ci làmb yor coowu làmb xale yëpp di ko topp tey Fils de Balla ba ñëw war a bëre ak moom jógee ci défaite diggante ma ki nga xamante ne mooy Quench la fois passée combat bi ñii ba tey nit ñi ñooy wax. Lac Rose dafa mel ni dafa am problème mu genou wala dafa euh, genou bi wéeru ko bu fekkee da koo am mu dem faj ko ñëwaat ci làmb ji ndax place am dafa des ci làmb ji te du xale mag la. Serigne maa ngi lay nuyu. Badou Mbaye maa ngi lay seet. temps yi da ngaa xew. xew teel baal yooyu. caatu yow ñax a jariñu la 14 janvier. combat bu neex. combat de confirmation pour Thiatou Yoff combat de confirmation aussi pour Niakh Jëriñ parce ñoom ñaar ñëpp si defet lañ jógee te ñoom yaa bu ñu daanoo ku ne def dafa def erreur moo waral mu daanu lamb la 14 nag la ñu war a ñëw mën dëggal seen bopp pour wan seen waa askan rawatina seen ay supporters que ni lamb ji mu jóge dama juumal. am na favori. déedéet ñaq jëriñu caatu yow amul favori ñaari ñaari njool nañu ñoo booy xool ñoo tolloo booy xool bëree booy xool bëree sax côté ñaq jëriñu nga gën a tiit côté bëree bi parce que bëree moo gën bënn te a caat parce que caat li ñu gis ay combat am souvent lu si ëpp bi lay focus. jël bu am aussi lu ci ëpp si côté xeex bi lay ñëwee ñàkk jëri ñu gis nga day bëri day xeex mu nekk mbër bu oos nag mbër bu woo kong tàkku saanam ak Jackson la fois passé fii si arène nationale nu mu mu bëreeg moom si fulla bëreeg moom si fayda mais yàlla moo yor ndam te ñaar mooy dugg mais benn mooy génn yàlla suñu borom jox Jackson ndam moom ñu koy encouragé mu ñëw wane fulla wane jom caar yow aussi fii la mujjee diggante ma ki nga xamante ni mooy Tyson 2 gis nga keroog ba xeex la indi mooy lay wax léegi toujours si lay gis adversaire bi nax ko si bëre daan ko mu nekk combat bi nga xamante ni nee naa la combat bu nar a neex la ñu war si ànd ak nag waa ETDR kanji production mu baax mi moom mi nga xamante ni keroog bu ñuy fubal ndeysaan gis nga ensemble mooy mu t'offrir mu nekk geste bi nga xamante ni dama koy magnifier quoi geste bu ñu bu may saluer la man sëriñ ñu koy ñaan bu baax a baax combat si yàlla su teg loxoom waaye Fils Balla ak ki nga xamante ni mooy Lac Rose loolu moom mooy guddi gi nga xamante ni sàcc yi dañoo génn gars yi dàq yi sàcc kar leen sàcc yi amuñu fu ñu jaar làmb jooju daal mooy dàq si làmb yi kañ yi daal may nañu journée bi nga xamante ni ne exclusive la macha allah jaajëf Babacar kii mooy xale eh, li li motivation et eh, loolu li fa nekk moom moo def xale la boo xam ne nii na ko làmb bàyyi xel bu baax a baax a baax ndeysaan Badou Mbaye yow ñoo lay jaajëfal di jaajëfal sa site bu baax a baax gis nañ liggéey bi yow tey ji lu bari loo xamante ne tey ji ñoo ngi koy def ci làmb rek yow yaa ñu koy conseillé di la jaajëfal si sa si sa disponi si sa disponibilité si ñun sa sa yaatuwaay ñun amuñu sa fay quoi yàlla na la borom bi fay. le 14 janvier kañ ji ma woote. fils de Balla Lac Rose. mu nekk combat bi spécial. combat boo xamante ni ñaari jàmbaar la ñaari ndaanaan ki nga xamante ni mooy Lac Rose daa am lu mu juge te dafa am loo xamante ni da ko war a wanewaat ci li nga xamante ne mooy làmb ndaanaan la champion la làmb nag léeg boo demee ba si biir daa am yoo xamante da lay dal lu si mel ne ay blessure ak yooyu noonu mais balaa boobu lépp loo xamante ni gàkk la rek yàlla na ko borom bi taxaw ba mun a ñëw bëre ki nga xamante ne mooy Fils de Balla Fils de Balla nag champion la ndaanaan la moo ngi def li nga xamante ne mooy ay preuve am ci làmb làmb jooyu bu ko daanee dina ko may li nga xamante ne mooy opportunité pour mun a dem dugg pour des grands mm, jaajëf Bamba maa lay nuyu waaw ba am nga jàmm sant yàlla bu wér loolu kii mooy maanaam Lac Rose ku may waaw ak i xam ne moom mooy Lac Rose. ak ak nga xam ne moo lagros Lac waaw loolu la ñu wax naan làmb du maas dabante la parce que boo dee xool ci wàllum palmarès Lac Rose dynamique victoire yi li nga xamante ni moom la am waaye li tax ñoom ñaar làmb boole leen mooy fils de daa ñëw wane ay preuve leer yaa ngi dégg daan ay moromam daan général Malika daan ki nga xam moo di Goro Sock Lac toog 10 yoo xam ne amul ndam. xome sa diggante ak Modou Anta Demba Diop la gëj a amee ndam man su ma gisee ku naan lamb ji jaadul ay reetaan nga may def waaw lamb la te man sax de boo bëggee dégg dëgg sama favori xam nga laa koy jox Fils de Balla parce que moo si gën a nekk mooy xale la mën a wax nag na lamb ju neex na Lac Rose la moo ko arrangé si bés Lac Rose li ko arrangé mooy ñëw taxaw bu mu def dara kee mooy xale mooy ñëw pour wut mooy ñëw taxaw booy bi lu mu def mu jëm kaa jumloo am dam amul leneen lu dul loolu loolu rek la mën a def parce que boo dee xool si wàllum kàttan boo dee xool ci wàllum kattan Fils de Balla moo ko bu kattan moo ko gën moo ko mujj bi moo ko gën a compétir bu ñu waxantee dëgg xamal damay dégg gars yi naan lamb daan na xaree waxee déedéet li ngay wax heure boo ko raxayru rek boo ko ñemee rek mu neex mu newoon loo xam logique mais gars yi dañu waxe ak complexe waaw déedéet la ngay wax la fa nekk noon la demee maa ngi lay fay Badou Mbaye ba am nga jàmm sant yàlla baax a baax la 14 yéen a woote waaw Fils de la la Rose jàpp di yóbbu ñax a waaw mi combat njëriñ dem at na di ko xaar Fils de Balla jóge ci victoire bu am solo nekk relève bokk ci yaakaaru Guédiawaye waaye kii di Lac Rose bokk ci yaakaar Igri Fass nekkoon ci ay tolof tolof jóge ci combat perte ko diggante ko Comens mu gën koo mu gën koo mu gën koo motiver mu yokkaat doole bàyyiwaat lu bëree bëri pour am ndam ci diggante ma Fils Balla combat la bu xam te combat bu neex a neex ñàkk a jëriñu ñim dépassé ci biir làmb ñu ko fi bëgg a bàyyi tey bu làmb waxoon dëgg à 100 pour cent day dépassé fii mais làmb nag day ba day am yaa oo haut yaa da bas mais kii nekk ndaw di prouvé wane ay preuve ba toll fi mu toll war a bëreeg ñàkk a jëriñu mi combat bu neex a neex Badou Mbaye. ñàkk a jëriñu Thiatou am na favori. favori a ah, man gisuma ci favori de pour man pour l'instant nii pour man 50 50 rek wala boog bu favori di am da nga koy jox ñàkk a ndax moo ko jur ci biir làmb moo ko ëpp ay picc yu mag waaw ci côté boobu. bëgg naa ci yow jërëjëf. mbokk yi septième combat de la soirée ñaari xale yaa ngi ci bi Boy Paul ak Doomu Loro Boy Paul ak Doomu Loro ndeysaan Boy Paul la ñu jàkkaar lool ñaari xale yaa ngi ne teg di leetoo leetoo ak Doomu Loro arbitre na ngeen ndeysaan fu Barça toll Boy Paul ak doomu Loro ndeysaan jamono ji may wax ak yéen Barça ngi fubal Boy Paul sunu doomu Loro sunu xam ne Atlético lu sedd guy bu gaaw ndeysaan ndax équipe Barça bi ma gis nii gëmul mën naa ko yëgal ndeysaan ñaari xale yaa ngi ci ba Boy pol ak dom Loro ndax Boy pol ak dom Loro ndeysaan ñaari doomu dip Boy pol ak dom Loro ndeysaan bokk yi ñu fatale wala nga xamne mom moy Boy pol mo ñu man ginaaw mo xaw si tuuti doomu Loro ñaari xala yaay ngi boyloo boyloo daan na ko ndaanaan la moom boyloo daan na ko birib dib la birib dib birib dib la aja ndeysaan mbokk yi saan LVD TV la voix du Ndiambour production mbokk yi huitième combat de la soirée avant combat spécial mbokk yi na combat bi ndeysaan appliqué moo ñu wan ginnaaw Fils de Katy leen jàkkaarloo ndeysaan appliqué ak Fils de Katy appliqué fisakat yi ndeysaan mbokk yi ñu fàttali leen Dieye production moo fi woote waaye gannaaw combat bi dox si ñaabu ndaw ak Bour Sine combat bi ndeysaan càddu arme bu ngewal la ak T-Max ñaari xale yaa ngay léewtoo ndeysaan moom fisakat yi ndeysaan mu ngi doxee li nga xam moom mooy latéral day dem gauche ba mu yàgg mu dem droite ba mu yàgg ndeysaan ñaari xale yaa ngi ne tekk ndeysaan appliqué ak fisakat yi ndeysaan appliqué fisakat yi fisakat yi moo gàtt appliqué moo njool ak fisakat yi ndeysaan léegi fisakat yi ngay dox ci koom appliqué arrière tourna appliqué doon na léegi ak fisakat yi xeex appliqué bi sax ña ngay xeex ña ngay xeex baadu ko doomu daanu ña ngay xeex baadu ko doomu daanu ña bi sax ndeysaan jàppante nañu appliqué ak Fils de Katy ndeysaan mu ngi koy bëtt Fils de Katy koy bëtt mu ngi koy bëtt baadu ko mbotti eh, ànd nañu ñoom ndeysaan eh, waaye ndeysaan ñaari xale yi bëri nañu bëri bu rëy ñaari xale yi bëri nañu bëri bu rëy ndeysaan Fils de Katy moo ko bëtt daw taf ko plaqué ko ànd ak moom waaye ki nga xam ne moom mooy appliqué dóor moo tam taxalikoo arbitre bi la wax na ndeysaan bisekat yi ak appliqué bisekat yi ak appliqué ndeysaan mbokk yi arbitre bi la wax na bisekat yi ak appliqué bisekat ak appliqué appliqué ak fisekat yi ndeysaan jàppante loxo ndeysaan Babacar Fatickman moo commencé ñëw kal na ko appliqué kal na ko Fils de Katy dóor na ko Fils de Katy ngay dox ci koom appliqué Fils de Katy mu ngay xeex da ngay xeex jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko lu mu koy def jël na ko jël na ko appliqué Fils de Katy daan na ko Fils de Katy daan na appliqué ndeysaan Fils de Keita daan na appliqué Fils de Keita daan na appliqué ndeysaan xoolal xale ba yow xale baa ngay jàpp xoolal xale baa ngay jàpp ngay jàpp xale bee waane aja ndeysaan Babacar mbokk yi seen LVD la voix di Ndiambour Lo waaye mooy taxawal combat bu mo taxawal combat bo xamni ni demb la taxaw way ciow li bari ci mbok yi ñaari xare jeex jam ak fegal bu ngor ndaysal way mbok yi combat spécial ey mbok yi jey position mo fi te max mo ñu mën ginnaaw way ndaysal ki nga xamni ne moy mooy arlu ngeew la ñu jàkkaar loolu ndeysaan yi lamb ju reey la combat xeex bu neex combat bi ba dina yak ndaysal armu ngeewul wacc na tankay ndaysal mo ngi dox ci kom Tmax ak ki nga xam ne moom mooy arme ngeewul ndeysaan Tmax door na moom Tmax moom fi mujjee Baye Ma Ndiaye la daan arme ngeewul fi mujjee ndeysaan bébé Ama la daan eey mbay ñaari xale yi jàppante nañ ay loxo ndeysaan bàyyinte arme jokkaas na arme ngeewul Tmax ndeysaan arme ngeewul ak Tmax ndeysaan arme ngeewul ak Tmax ndeysaan arma ngeewul ak Tmax ndeysaan waaye dara xewagu fi ñaari xale yi dañoo joxante cër ndeysaan Tmax doon na arma fayu na arma ngeewul ndeysaan doon na ab laaw Tmax arma bu ngeewul arme laawaat na waaye darul Tmax door na waaye dara darul dara xewagul waaye combat bu am solo seen carrière ñoom ñaar combat la boo xam ku ci gagné da ngay dem fenen ci ci lamb ndaysan té max arme bu ngewal ndeysaan te max mo jóge fi nga xamni mom moy Grand yof way arme bu ngewal ndeysaan moo jóge ca Mbeeja ndeysaan ànd ak wajender ñew ñëw arme ngewal ak té max té max mo ñu man ginaaw ngembo ngembalu ñuul arme ngeewal la ñu jàkkaar lool waaye dara xewagu fi ndeysaan waaye gëm naa ne bu ñu jàppantee mu jeex Babacar gëm naa ne bu ñuy jàppante lamb ji jeex ndax ñoom ñaar ñëpp ay daanaan lañ ndeysaan si door ngay wax ak ñoom si door na ngeen bëre ndax mu ngi guddi ñuy fiñ nekk dafa sori ndeysaan Amadou Baye Karim moo toogal sees ki nga ni moom mooy ngeewal moom Armé bu Baye sama xarit la sama waay la waaye nit ku yàlla baaxal waaye Boubacar Boy Wunja Boy Antu Boy maa ngi borom Italie yo ndeysaan Sitor na combat bi Sitor arrêté na combat bi nee ngeen bëre su loolu nee na ngeen bëre su bi day dal kaw de ndeysaan te mag si door na waaye moo nami de valeur Isaaxa Ndiaye maa ngi lay la suñu moom dafa la jàmb ci Espagne googu nekk waaye di ñaanal xale yi nga xam ne ñoo jël gaal gi yal na leen yàlla dafa jàmm bu ñu sonoon kenn dugg ci gaal waaye réew mi réew mi métti na métti goo xam ne nii lu xew lu xew avertissement Armou Ngéwél am na avertissement T Max am na avertissement ku nekk am na benn avertissement T Max ak Armou Ngéwél ña ngay doxee latéral T Max doorat na beneen waaye dalul waaye Gora Mbaye ndeysaan ña ngay xeex ña ngay xeex jël na ko jël na ko baadu ko daan jël na ko daan diis ndeysaan T Max Armou Ngéwél mu ngi koy takk mu ngi koy dajal di ko takk mu ngi koy takk arme ngéwél ak T-Max ndeysaan mu ngi koy takk mu ngi koy takk lu mu bëgg lu mu koy takk ndeysaan lu mu bëgg mu ngi koy takk ndeysaan arme ngéwél nga koy takk ndeysaan ndeysaan arme ngéwél ak T-Max arme ngéwél ak T-Max ndeysaan arme ngéwél ak T-Max ndeysaan mu ngi koy dajale am na ngemba moom arme ngéwél mu ngi koy takk ndeysaan mu ngi koy takk ba du ko daan mu ngi koy takk la ilaha illallah eh, eh, eh, eh ñu déglu arbitre ñu déglu arbitre ñu déglu arbitre ñu déglu arbitre arbitre nee na njaax ndeysaan arbitre nee na njaax ndeysaan nañu xooli VAR ndeysaan waaye nañu xooli VAR ba Babacar VAR Babacar VAR Babacar Sy doona ngay dem sa ba Babacar Sy doona ngay dem ba Babacar Sy ngay dem ba la ilaha illallah Sy doona ngay dem sa baar ba ndeysaan Sy doona ngay dem sa ba dafa ma waree am moo yàgg ndeysaan ñu déglu VAR bi ñu déglu VAR bi ñu déglu VAR bi ñu déglu VAR bi ñu déglu VAR bi ñu déglu VAR bi ñu déglu VAR bi ñu déglu VAR bi lay laax illa laa ak si ñu ne daan temak sitana daan na ngewal barbe ho genne temak te Maxi daan ngewal lol ñu ne aja ndaysan babakar ma ngi kontaan ci yow bu baakha baakha baax aja ndaysan mbokk yi sen LBD TV waaye mbokk yi e lu way doon jay léegi rek mu lamb ndaysan mbokk yi ñu ngi jëm ci gànnaaw combat bi nak bi nga xamni mo war dox ci bi nga xamni moy ñaabu ndaw ak Bour ndaysan ñaabu ndaw ndaysan mu ngi ci géew bi ndeysaan waaye Bour Sine nag mu ngi ne la di génne ndeysaan ñaamu ndaw nga ki nga xam ne ni moom ki nga xam ne moom moo koy ci wàllu mystique ndeysaan ndeysaan jox na ko ab sengoor ndeysaan yeew na ko ci ndigal ndeysaan moom ñaamu ndaw waaye ndeysaan ñaamu ndaw gi noonu ànd ak dund dundu bi nga xamne ni buñu gis ñaamu doon koy gis desan jonne na ko ak Senghor yow na ko si diggali dund am lu ci ciy diw waaye làmba doy war dundu amna lu ci ciy diw nee na ko indi sa beneen bi ndeysaan na bu ndaw tegaat na benen tank bi dund amna na lu mu siy diw xaw ma karité la xaw ma pomade la xawma ma lu mu doon ndeysaan ndeysaan waaye ki nga xamni ne moom indi Bour sin dugal ci bir geew bi ndaysan Bour sin a ngay jàpp mu ngay japp jappal mbeur sottee ko na ci kawam moom Bour sin Bour sin ak Niang Ndaw ndeysaan oh. waaye kontaan ndax ki nga xam ne moom mooy dund ndeysaan bokk doomu ndey koy jur ndeysaan ndeysaan Niang Ndaw ak dund ndeysaan ndeysaan waaye dund daf ko ñeewantal ndeysaan bëggul génn géej bu bàyyi ko ba ndeysaan waaye foog mu génn ndeysaan ñaa bu ndaw ak buur si ndeysaan am na lu ñu ko jox xaw ma xeer la xaw ma lu mu doon eh, ak leket la ñaa bu ndaw ak buur sin bu ndaw ak buur sin bu ndaw ak buur sin ndeysaan kooku moom mooy ñaamu ndaw xale bu géejawaay bi doomu Gounass la ndeysaan waaye bu seen ngi noonu ndeysaan xale bu bi doomu Bawol bi ndeysaan ñaamu ndaw ari ba ngay xol ki xamne momay ñaamu ndaw desan ari ba ngay wax ñaari xale yi mbokk yi jéem production moo fi woote ndeysaan arbitre baa ngay wax ak ñaari xale yi li lamb bëgg ak li lamb bañ desan bokki ñaamu ndaw mo ñu man ginnaaw Bour Sine lañ jàkkaar lool ndeysaan 20h 18 minutes ndeysaan ñaamu ndaw arrière na ba génné ñaamu ndaw arrière na ba génné ndeysaan ñaamu ndaw arrière na ba génné ndeysaan ñaamu ndaw Bour Niang bu ndaw Bour Sine ndeysaan ndeysaan mbokk yi arbitre na combat bi vingt dix-neuf minutes ndeysaan mbokk yi Dieye Production moo fi wootee mbokk yi saan LBD TV la voix di Ndiambour Production ndeysaan Niang ndaw moo ñu ginnaaw Bour Sine la ñu jàkkaarloo ndeysaan mbokk yi Bour Sine ba mu fuy ki nga xam ne moom mooy général Malika la bëreel général Malika ko gañe ko ndeysaan moom Bour Sine ñaari defe la teg lay ndax ki nga xam ne nii moom mooy Eumeu Sène Junior moo ko daan waaye bu ndaw ma fi mujjee arme bu ngeewal la daan ndeysaan moom ñaabu ndaw mu Moustapha Gueye numéro 2 daan ki nga xam ne moom mooy arme bu ngeewal ndeysaan xale boo xam ne bi mu duggee ci làmb sax yàggul waaye tey ñaabu ndaw yegsi na tey bu ndaw tey bokk na ndax xale yu gunaas yi gëm nañ ko ndeysaan ñaabu ndaw ak Bour Sine cokkaas na. ñaa bu ndaw Bour Sine ñaa cokkaas na Bour ak ñaa bu ndaw Bour ak ñaa bu ndaw ndeysaan Bour Sine ñaa bu ndaw ndeysaan ñaari xale yaa ngay kalkine ndeysaan Bour Sine moo jiit ci làmb waaye tey ñaa bu ndaw yegsi na ba mën a bëre moom ndeysaan Bour Sine jël na nga ñaa ñaa jël na nga ñaa jël na nga ñaa jël na nga jël na ndeysaan Niang bu Ndaw ak Bour Sine ndeysaan Niang bu Ndaw Bour Sine da ngay xeex Niang bu Ndaw doon na ko léegi dóor bu dal na ko Bour na ko Bour Sine na ko Bour Sine na ko ndeysaan Bour Sine ko waaye Niang dafa xaw a diis Bour Sine jël ko waaye Niang dafa xaw a diis Bour Sine ak Niang bu Ndaw ndeysaan ña ngay bëre arbitre toogal arbitre Bour ak Niang bu Ndaw ña ngay bëre Bour ak Niang bu Ndaw Bour Sine ak Niang bu Ndaw ña ngay bëre Bour Sine ak Niang bu Ndaw ndeysaan ñaa xitan na ko ci biir Bour ak Niang bu Ndaw Bour Sine ak Niang bu Ndaw ndeysaan san Sine ak Niang bu Ndaw Bour ak Niang bu Ndaw ndeysaan Bour Sine nga ngay génne waaye ñaa naka doo génne ndeysaan Bour ak Niang bu Ndaw Bour ak Niang bu Ndaw ndeysaan ak Niang bu Ndaw waaye Bour Sine teewul fen li nga xam ne moom mooy Senghor la jàpp Bour Sine door na Bour Sine door na Niamou Ndaw la ilaha illallah Niamou Ndaw daan na Bour daan na Bour Sine Niamou daan na Bour Sine xale la bu nekk ci yoon moom Niamou Ndaw ndeysaan ñaama ngay jooy ndeysaan Niamou Ndaw daan na Bour Sine ndeysaan Néew bu ñëw daan na Bour Sine ndeysaan xeex bu nekk ci yoon ndeysaan Néew bu ñëw daan na Bour Sine ndeysaan ma ngay seen dund ndeysaan ani Babacar ndeysaan Néew bu ñëw daan na Bour Sine ndeysaan Néew bu ñëw Babacar ñu ngi woon fi nga xam ne moom mooy ci Arène Nationale tey nag Dieye Production moo fi wootoon waaye gannaaw combat bi nag doxoon ci ñaari xale muy Néew bu Ndaw ndeysaan di xale et bu nekk ci yoon et di xale boo xam ne nii toujours day manqué ci làmb moom ñaabu ndaw gis ngeen desaan jël ñu daan ki nga xam ne moom mooy bursin ñaabu ndaw na ko làmb xel xale la bu nekk ci yoon daan na la ci wàllu làmb waaye Babacar waa LVD TV kenn du yéen yàlla na seen jàmm yàgg let's go Babacar LVD TV, la voix du Ndiambour.